benn combat lañ bëgg nga analyser ñu ko diggante Ama Baldé ak Modou Lo nga xam ñaari mbër yi seen qualité bëre ñaari mbër yi Modou surtout Modou Lo bi mu ñëw ñu ne woon motul mbër te gis nga tey fi mu ak ci làmb na fi dem na ba ci biir beneen tur dab ko muy ba ci biir tey roi des arènes dab ko ah muy Modou ah mais Ama mbër jàngal bëri yàgg-yàgg des na la ñam gis nga bi mu ñëwee ay morom yëpp parce que boo xoolee jeexal na la ñaari defet la am ci làmb ji te ñaari defet yëpp boo xoolee parce que euh, moo ko moo daan boppam Modou Lo gis nga ko bi mu ñëwee ñaar defe di fi am Balla Gaye 2 moo ko jox muy muy muy muy ñaari mbër yoo xam si ni tey buñ bëggoon nga maanaam maanaam boo ñu doon tojal combat si ñoom ñaar ci xeetu bëree ci xeex bi combat bi ndax day gaaw day yàgg ci lañ bëgg nga tojal ni combat diggante Modou Lo Ama Baldé noo xale. waa diggante Modou Lo Ama Baldé combat bi day gaaw combat bi day gaaw Ama du ko xaar Ama boo Albir wàccee loxo mu ngi ci kaw Modou te dañuy daje combat bu gaaw lay doon man maa la wax lii tey. combat bu gaaw dinañ bëre lu neex ama amul ku muy xaaral moom ama amul mbër bu muy xaaral ak noo toll mu ngi sa kaw. est-ce que nga yaakaar ne jotul jotul mu taxaw déglu. ama du déglu ama du déglu Modou Lo duñ ko nee sax déglu ama bu arbitre bi muy dal ci kawam du déglu Balla Gaye moo koy conseil nag. du ko du xaar Modou fenn bu arbitre arbitre siffle muy dal ci kawam te Modou tam ndaanaan la kudd fadrin bala ñëw ci bala ñu ñëw ci moodu Ama lu am ci combat bi digganteem ak Modou lu ci am. Ama digganteeg Modou lu mu ci am waa bërët bi ak doole bi waaw am na doole boo xamante ne ku ko chargé balaa ngay xalaat bëre yaa ngi si suuf am na doole boo xam ne ku mu ko chargé balaa ngay xalaat bëre yaa ngi si suuf waaw. bu dee bëre euh, parce que tey koo xam ne bi mu ñëw Modou Lo turoon dem ba ci biir dégg xarañ te xarañ gi lépp li ko andi mooy mën a bëreem nga ne nga ne ama ama bëre bi la am bërët waaw ama bërët bi la am nee naa ama bu ne bërët bu dalee sa kaw balaa ngay xalaat bëre yaa ngi si suuf waaw Modou moom daanaan la bërekat la moom moom loo ko may lu ndaw tamit da ngay forcer bopp rek waaw ndaanaan la te bu Modou tamit nu mu tollu doole bi weesu na lool nu mu toll doole bi weesu na lool seen gis ñoom ñaar ñu xeex. xeex bi fooguma ko nag yaakaaruma ñu xeex yaakaaruma ñu xeex. yaakaaroo ñu xeex. yaakaaruma ñu xeex. ñoom ñaar bu ñu xeexoon tey bu xeexoon tey ñoom ñaar kan mooy favori ci xeex. ah favori bi man du laa jox favori si xeex bi waaw ah, Modou laa jox favori bu baax sax si xeex bi. ngemb ñoom ñaar kan nga jox bëre bi. suñ jàppantee ngemb bëre tamit moodu laa ko jox. Ama am ci combat moom laa lay wax Ama am na Ama am ci de mais bëre bi Modou laa koy jox xeex bi Modou laa koy jox mais doole lépp Ama laa koy jox. bëre dóor noonu la ñu wax tey bu fekkee jël nga xeex bi jox Modou jël bëre bi jox Modou Ama amatu ci bi dara. Ama am na si dara kay. Ama yow Ama boo xoolee Ama dafa diis. Ama dafa diis trop. Ama dafa di Ama bu arbitre ne prix bu dalee ci kaw Modou Lo moom Modou mun naa balaa muy xalaat dara Ama moom mu ngi si suuf mais Ama tam bu jéemee xeex ak Modou tamit lu ne mun na ci Ama. Ah. Ama tëlewul xeex de. Ah, xeex de. Ama xeex de mais xeexu Ama ak Modou Lo du benn xeexu Modou Lo du bokkuñu sax bokkuñu lu ñu xeexee sax. yow bu doon tey yaa yóbbu Ama war koo digal ci diggante mu Modou Lo lan nga koy wax. bëre la moom. bëreel ak moom la wax du ma ko xeexal moom bëreel ak moom. bëreel moom si koo xam si ni daa ko koo bëre. waaw mais bëreel ak moom non si. daa ko bëre mais tubaab nee na la force élimine l'expérience. doole de élimine xam-xam ama doole mun na fekk Modou Lo foo xam ne da ko fay jëlee. actuellement yow jàpp nga ne Modou Lo Ama Baldé moo këpp doole. non bokkul sax boo xoolee sax xam ne bokkul. ama macha allah doole. daa bari doole kattan kese la. léegi léegi ñëw si am ci combat bi. ah ci combat am ci combat bi Modou Lo am na ci xeex am na ci xeex am na ci xeex ama ama lu ndaw mu mu daan ko am na ci xeex ama jum mu daan ko wax dëgg yàlla. kon yaa yóbbu di ko conseillé lan nga wax mu bëri ama Baldé. la laa mu bëri ama. déplacé loo ko di xeexam moom ma déplacé ma Ama dafa diis muy déplacé di xeexam moom. combat bi séenu ko ci ñoom ñaar ñu taxaw di léwtoo lu yàgg saa ñu laalante. Ama du xaar loolu. Ama moo dul xaar loolu moo mun na taxaw di léwtoo mais Ama moo dul xaar léwtoo bu yàgg du ko sax xaar. bu combat bi du ko sax xaar Ama déggoo li ma arbitre ne par mu ngi ci kaw Modou. combat bi yàggee. waaw ñoom bi yàggee avantage Modou Lo la. combat bi gaawee. Ama Baldé. doon dégg ngeen xale bi li mu décortiqué si diggante Ama ak Modou Lo waaye mënuñoo comme ñu ngi gën dañuy des si combat diggante mobile 2 ak ki nga xam si moom mooy Bour Sine muy ñoom ñaar combat ndeysaan laa ko tuddee ndax ñoom ñaar kenn ku si nekk ah, mbëru mbëru gox nga ah, rawat na mobile 2 rawat na muy muy muy Bour Sine ñoom ñaar ñëpp di ay murwaar jóge ci ay défaite ñoom ñaar muy combat boo xam ne mën naa la combat ndeysaan la ah ñoom ñaar parce que ku daan am na feneen foo xam ne fa lay yóbbu waaye ku daan a yóbbu ci làmb diggante mobile 2 ak Boursine waa diggante mobile 2 Boursine combat la ndax ku si nekk xam nga si li nga jógee di noy mobile bu baax a baax di ko ñaanal combat bi mu jublu suñu boram defal ko ci ndam di naanal naan di faal tamit suñu mag tamit combat ba mu duglu tamit suñu borom defal ko ci ndam baax a waaw combat mobil Bour Sine combat la comprendre nga ñoom ñaar ñoo tolloo tolloo lépp ah wax dëgg yàlla te Bour Sine tamit néewul doole mobile tamit néewul doole waaw ñun daal ñu ngi ñaan mobil suñ borom defal ko ndam. mu gaaw. non du gaaw. combat boobu du gaaw. combat bi la moo tax du gaaw ñoom ñaar ñëpp si defet la ñuy jógee te ku si nekk da ngay calculer da ngay sóoraale. waaw moo tax combat bi du gaaw. man de seen xeex. non non yaakaaruma ko ci nag combat boobu yaakaaruma ci xeex. mbapat daal nga gën a yaakaar. mbapat laa gën a yaakaar. mbapat. bu combat bi yàggoon ñoom ñaar kan la arrangé. bu combat bi yàgg bu yàggoon. mobile la arrangé. bu combat bi yàggoon mobile la xoolee ci côté masse mobile moo xaw a masse tuuti nga nga ne bu combat bi yàgg mobile mobile lay arrangé. mais mobile dafa déggoo tour bi dafa mobile moom masse bi dérangé ko dafa mobile masse bi dérangé wu ko combat bu yàggee loolu du dara ci moom loolu du dara. Boursin lu am ci combat bi. bi xeex ndax day xeex bagarreur la moom xeex la ci am. bu bu ñàkkee xeex bi rek jeexal na amatul leneen. lu mu am ci combat bi. abi sifflé mu dox ci kaw Bour Sine daw jàpp ko bëre moom. tey bu doon yóbbu mobile nag naan ko bëre la ak moom. su ma koy yóbboon te maa koy yóbbu dama koy ne bëre la ak Bour bu arbitre wàccee doxal ci koom daw jàppante ak moom bëre moom. am na kàttan bi te mun na bëre bi te néewul doole macha allah daa mun a bëre bu ko jàppee daan ko. jaajëfal la sant la bu baax sant sa gaay yi ah di santaat comme li ma wax sama émission tay bi doomu Grand Yoff laa xam ne rawat na waa waa rawat na waa koñ Njaago di jaajëfal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, di wax ne amul kenn ko faat damay bañ ñibbi nga am non sama grand bi dama ko faatoon ak yooyu xalaatala amul koo faat ma taalaa la micro bi waaw euh, sama mbokk mbëri rek la faate ah wax dëgg yàlla ku si mel ni bébé Malick Niang ku si mel ni Thiatou Walo vocale comprendre nga ñooñ laa fi nekkal comme samay morom quoi wax dëgg yàlla di leen sant bu baax a baax di sant sama sama booy surtout sama pro bi tamit mooy sama jour benn jour laa am muy Jean Neymar aw ma beneen jour bu dul moom wax dëgg yàlla te demagul fenn xale la mooy sama pro quoi ñoom Yaara Fall sama booy koñ yëpp bàyyi ma kenn di leen gërëm bu baax a baax di sant sama mag ñu koy ne Lucie di ko sant bu baax a baax a baax waaw di sant ñëpp képp ki nga xam ne fàtte naa la rek waaw da ngay ne xel bi nekk di fàtt di tamit bébé say bébé say doom métti say avocat wax dëgg yàlla moom it day sonn ci ñun waaw di ko sant bu baax a baax a baax a baax waaw képp ki nga xam ne nag fàtte naa la rek xamal ne waaw xel bi mooy lool noonu billaahi waaw di leen sant bu baax a baax di sant ñëpp nag waaw. SBT Média. waaw wax dëgg yàlla yéen a ngi génnee mbër yi wax dëgg yàlla ndax xoolee leen kii bëri na arène xoolee leen kii bëriwul arène mbër bu làqatu fu ne ngeen dem génnee ko comme yéen gars yi dañ leen di sant bu baax a baax lépp yéen la. waaw mbër bu fi jóg yen la yaa ngi dégg mbër bu fi làqatu yen la saa yen mbër ken du ko xam comprendre nga comme yéen dañ leen di sant bu baax liggéey bi ngeen di liggéey nag yàlla na suñu borom teg leen loxo ba mu jëm ca kanam yaa ngi dégg ba doon télé tele bu mag a mag a mag loo leen laa leen di ñaanal te incha allah noonu lay demee. Mhm. SBT Média teg leen seen baaraam foofu ak beneen champion ak beneen ndaanaan ci SBT Média kii ñu jël si woon nag la 4 combats 4 victoire dégg ngeen combat yi mu man daal xam naa du ma wax dara en tout cas daal lamb la joo xam ne ay lamb la fi wax yoo xam ne ay lamb yu neex la dégg ngeen diggante ma sava bëgg na ko bëgg na bëgg na fi ay xale yu bëree bëri yoo xam ne lamb la ñoo leen ñu bëre yéen a ngi may ñu bëre temps bi day dem ca xaaru fi kenn kaa leen bëre ay morom lañ voilà gay kon ma dégg da bëgg wax ne ku la jëlu da ragal dañ maa tapet ku waaye ma ku ma jëlu man lan laay ragal ku ma jëlu dañ maa tapet na ñëw ñu bëre ñëpp ñoom ñëpp képp na ñëw ñu bëre sama yaram day xasan dama ko namm dama namm dama nam dama namm esaat bilaay dama ko namm trop sax. bilaay ba ba daw wër esaat bi dugg ci géew bi dama ko namm combat bi darma ba estad dama kaa namm trop sax. voilà comme na gars yi ñëw ñu bëree foo foom góor la rek foom góor la kenn doo bëree ba dee doo xeex bañ dóor la nga dee yëfu góor la rek da ngay dem ñafe ñu xam sa njàmbaar comme na ñëw ñu bëre waaw kenn bëriwu fi ba dee gisaguñ ko fi. waaw comme jàmba bëre la rek nañ ñëw ñu foo bëre bu jeexee rek jeex na voilà.